spectateurs yi safoo jàmm ji info mbokk yi jàmm ji info tey dellusiwaat ci beneen euh, taxawaay rek ni ñu leen ko waxee seen jotaay ci wàllum xam-xam tey seen jotaay xam-xam mais tey yaakaar naa ñu leen ko présenté ak sëriñ euh, Bara euh, Kébé macha allah di ko santaat bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ni saa suñ ko yittewoo itam mu yombal ñu li ni mel macha allah di borom xam-xam waaye tamit ku ñemee gestu ci wàllum xam-xam moom la ñu fekk si fii tey ci résidence am fii ci Dieuppeul 2 en face clinique Croix Bleue cité prestation familiale balaa ñuy sore dañ koy daal di bàyyi rek mu nuyonteeg mbokku téléspectateurs yi. Serigne Bara Kébé salaam wa rahmatulah Mouhamadul Amin maa ngi lay ziara bu baax. di rafetluwaat euh, dellu si waat gi ngeen dellu si ñu fas yéene waxtaanaat ci xam-xamme mm-hmm. mbooleem loola ñu laaj lu ci xam ñu wax ko lu ci xamul itam ñu bàyyi ko ko suñu borom mi nga xam ne moom mi dara umpul mm-hmm. incha allah fa yéene ñu waxtaane ci tur la waxtaane itam ci wàllu ñaan mm-hmm. waxtaane itam ci actualité comme ni ñu koy defee alterné bu nekk mu neex yàlla mm-hmm. kon incha allah ñu dellusiwaat bisimilah ñu déglu waxtaan incha jërëjëf sëriñ Bara Kebe ci nuyu sell yu tedd yi lay tabarkaat la mbokk yi ma wax rek ni seen jotaay xam-xam ne dellu si waat na euh, tey euh, sëñ Bara fi ñu jëm directement rek yaakaar naa ne très rapidement tey dañuy waxtaan rek euh, doomu aadama mhm. ndax ñu bëri tey da ngay gis ñoo xam ni seen lépp tey nee nañu bayre la mhm. te ku ci ne bayre ñu ci bëri ne ubbeeku mhm. ndax ñu bëri dañuy confondre jàpp ni benn la am ñoo xam ne ba léegi jàpp ni loolu du benn muy bayre ak ubbeeku jërëjëf Mouhamadul Amine waa bayre ak ubbeeku mën nañoo doon benn maanaam mën nañoo ànd waaye doonul benn ndax nit ko bu fekkee ne siiw nga ba foo toll ñu lay tudd bokkul ak nit ki itam ku la gis bëgg la ndax nit ñi dañuy jaawale loo xam ne moo lay yombal pour nga siiw ak loo xam ne mooy tax ku la gis bëgg la bayra nag mooy loo xam ne foo toll dañ lay tudd foo mën a nekk sa tuur dafay jóg ci kaw bokkul nag ak ku la tudd bëgg la mm-hmm. waaw bu fekkee ne nag noobeen tasxiir sa diggante ak nit ñi mooy tax képp koo xam ne daf lay gis rek dafay am cofeel ci yaw waaw mu des nag ubbi ko ubbi ko am na bayre yoo xam ne dafay ànd ak ubbi ko maanaam daf lay ubbi en même temps dafa lay permettre sa tour mën a jóg ci kaw am na bayre bayre yoo xam ne nag moom sa tur sa tur rek lay yëkkati nga xam ne sa tur mën na yegg sax fu sa jëmm yeggut am na ubbi ko yoo xam ne itam moom spécial la maanaam daf lay ubbi pour nga sa buntu wërsëg yi nga xam ne tëju na ak sa biddiw yi nga xam ne ni ma doon wàccee ak ni ma doon yéegee dafay dafa yéegatu ko dafay permettre sa biddiw mën a takk kon bayra ak euh, ubbiku mën nañoo ànd waaye nag bokkul benn du benn macha allah mm. sëñ bayra foofu sax très rapidement mm. am na ñoo xam ne dañ naan la tey ki sunguf moo gën a gaaw ci côté côté ci wàllu doomu aadama bi mhm. ñu ne alxuraan bi directement mhm. moo mën a gaaw ci ci ci moom mhm. euh, naka la ñu mën a composé ñaar ñoom nan lañ leen mën a ràññee ni kii sunguf mën naa gaaw ci mbiram waaye kii alxuraan moo gën a gaaw ci mbiram waaw c'est biddiwu nit ki ngay xam parce que nit ki pour nga mën a xam ci lan mooy gën a gaaw ci moom faaw nga xam tabixam te tabixa nit ki mën mënoo ko xam te dëgg-dëgg jàngoo xilmu nu joom am xam-xamu biddiw soo jàngee xilmu nu joom ci ngay mën a xam tabixa nit ki soo xamee tabixa nit ki nag ci ngay xam ndax ci sunguf nga koy mën a ñaanal mu gaaw wala ci mbindum saafara nga koy ñaanal mu gaaw mm-hmm. li tax nag nit ñi di wax euh, ci mbindum alquran boo xoolee moom moo gën a gaaw parce que alquran dafa bari loo xam ne mënul ànd ak moom maanaam fu mel ne sobe te ci jamono ji ñu toll pour nga gis nit koo xam ne dafa set ba tax bu laalee alquran moo mën koo bii dafay xaw a jafe moo tax en général buñ koy liggéey dañ koy boole ak sunguf am na ñoo xam ne dañuy bind yenn aay kaasee ko ak sunguf mhm. sunguf moo xam wen moo xam euh, waswasoor moo xam belwengeer euh, moo xam fuuf mhm. euh, moo xam marisaar moo xam pomi yooyu yëpp ay façon sunguf la yoo xam ne moo xam tobb moo xam tobb neew tobb daxaar tobb guy mhm. moo xam yooyu nga koy mën a booleel kaasee ko ko pour mu mën a pour mu mën a baax ci nit ki waaye boo xoolee ci jamono ji ñu toll nga nga jël nga nga bind alxuraan kaasee ko sunguf si wala nga bind alxuraan jaxase ko ak sunguf si moo ëpp doole mooy gën a am doole ka nga bind alxuraan kese nga jox ko nit ki parce que pour nga gis ku set koo ko mën a dafay jafe ta sunguf am na sunguf yoo xam ne fi ne bu lay ubbi lu demee ne tey jii am na ci noo xam ne ci poftan nga boole ko ak wen nga xam ne guddi ba guddi nga koy sango ci duus lañ koy sango fi ne ne kooku duus rek la nga ko mën a sango te guddi ba guddi nga koy mën a sango te parce que euh, wen moom fu sobee fu sobee nekk moom la gën a nangu te ñaari garab ba fa ñaari garab rek la mën a la ko mën a composé te benn benn garab bi sax dañ lay wax ne la loo ci def nga ci def tuuti ndax moom dafa xaw a fiir mooy foofu kon ween soo ko jaxasee foofu nga ngay baxase ko ak paftan ci kaw nga xam sirru bi ni nga koy jëndee ba mën ko jaxase soo ko defee noonu moom foo koy sangoo boo ko laalee ci dus guddi moom boo xëyee suba di nga xam ne laal nga loo ma salaat xanaa kay nga ñàkk attan xet gi mhm. léegi nag mu des ci ci bayra nit ñi li ñuy jaawale mooy bayra ak ak loolu tax nga mën a siiw bayra ak siiw bokkul bayra mooy loo xam ne foo toll ñu la bayra mooy loo xam ne foo nekk nit ñi dégg la te di la di la di la kii comme ni ma la ko mën a misaale mooy ne ko fu fu mu waxee rek ñëpp na wax na mu mm-hmm. siiw waaye kenn du waaw waaye du ko bëgg waaw nit ñi kenn du ko bëgg maanaam buy waxee daal nit ñi dañ xam ne wax na turam mën naa dem fu ne waaye turam boobu li mu ko indil ma ak mbañeel ki nit ñi rek la koy indil ok sëñ Bara am na ñoo xam ne dañuy am dañu naan bayra bayra mais euh, daanaka tey boo leboon 1000 francs sax wala soxla woon 1000 ci ñoom doo ko am mm. parce que waaye am nañ bayre siw nañ loolu mais euh, maanaam daal mënoo jëlee ci ñoom dara maanaam dañ dul yor waaw dafa am bayre yoo xam ne comme man euh, li nga xam ne moom laa ci xam mm, bokk ci ma xam am na bayre boo xam ne ci galañu tama lañ koy lañ koy lañ koy liggéeyee yaakaar galañu tama moom yaakaar naa ne mu ngi fii mm-hmm. euh, suma ma juumul man naa leen ko wan mm-hmm. moom soo ko defalee ba pare moom boo ko sangoo day aaje nga am kaaraange parce que boo amul kaaraange gàtt fan lay indil. te comme ku mel ni man man sumay liggéey nit dama koy dama koy wax conséquences yi ci nekk. ndax ay liggéey am na fam liggéey yoo xam ne dafa am conséquence tey par exemple ku amul 25 ans mënoo ko laal. te boo amut vingt cinq ans laal ko gàtt fan rek la lay indi mën ngaa teel a siiw nit ñi mën la tudd mën nga am relation bu nekk mais gàtt fan léegi yenn saay xale ñëw nga laax ko ko mu ne la man bëgg naa mhm. waaye danga koy teel a wax am naa ci ak kaayoo xaa boo xam ne moom mënutuma ko fàtte ndax xëy na def faute bi ci man la mhm. waaye lu mel noonu ñaanal bu ma yàlla mu dal ma kon bàyyi rek ku koy wut ku ne boo xamee bayre bi ngay wut na nga def très attention wut kaaraange gu dëgër gu lay mën a aar. macha allah sinon fa ngay mujjee mooy bayre bi dafa lay mujj du lor waaye du la jariñ. macha allah. Hmm. mbokk yi Serigne Bara euh, Kébé mbokk euh, ko waxee rek sunu euh, ci résidence am Dieuppeul 2 téléphone bi yaakaar naan mu ngi noonu rek di affiche ci baaru écran bi 77 027 10 61 Serigne Bara fi ma jëm directement tey xam naa waxtu baa ngi dox. Hmm. askan wi. tur yàlla woo xamante ni. njëriñam lu baax ñu waaw tey tur yàlla bi ñuy indi mooy yàlla tiif yàlla Latiif dafa doon tur woo xam ne jigéen ñi yàpp nañ ko lool rawatina suñu suñu tollee ci diggante maanaam suñuy matu dañuy bari luñ koy tudd. ndax turu yërmande yàlla da ciy wàcc lu bari. te ñu bari dañuy wax ne. borom xam-xam yëpp dañuy wax ne tur yëpp dinañ toll jamono joo xam ne dinañ wàcc waaye Latif moom foo ko fekk moom dafay yéeg am jamono ji nekk mi ngi connecté ak boromam. Latif muy tur woo xam ni ñu bari bëgg nañ ko lool ñuy yëngatu ci wàllu lasraar waaye patience bi lañ dul am maanaam buñ koy tarbiyu dañuy bëgg code à code ñu tarbiyu ko léegi mu jot ci li nga bëgg a lekk te Latif ay mbiram gaawewut noonu. ndax moom li tax ay mbiram gaawul mooy mbooreem loo koy ko looy jokkalanteeg sa diggante ak borom. Mhm. balaa ngay mën a yegg daf lay setal ba pare. parce que mbooleem bakaar yi nga am lay raxas. Mhm. raxas sa jikko raxas ci yow soxor raxas ci yow iñaan raxas ci yow bokkaale raxas ci yow lekk lu lewut da dem ba maandute mooy nekk ci yow mu ko defee nag mu ko door a mën a connecté ak sa borom. kon Latif buñ koy wird ci li lim bi gën a néew nañ koy wird 129. ci waaw 129 waxtu julli wu nekk saa boo jullee ba pare nga koy li wird 129 loolu dina la tax dina ànd yenn euh, euh, bakaar yoo xam ne dafay nekk ci yow dina ko raxas ci yow soo nekkee ci njàqa njàqare itam nga koy 129 boo ko multiplier par 7 mm-hmm. moom koy wird ci ci ci lim boobu boo jëlee 129 nga multiplier ko par 7 euh, nga koy wér di ci boobu boobaa sa njàqare day dindi njàqare ci nit ki njàqare bu nu mu mën a toll daf koy dindi beneen bi itam mooy lim bi ci gën mag wala ci boo ko multiplier 129 fois 129 la jox 16641. 16641 mm. mooy am am xaw yi lim boobu itam lim bu am solo la ci bu fekkee ne nit ki dafa bëgg di ko tarbiyu mën na koy def waxtu julli wu nekk mu koy jël 129 bu guddi jotee. Mm-hmm. gannaaw 3 heures et demi mooy guddi gi soo xaajee ñetti xaaj. xaaj ba mujj ci xaaj yi boo ko calculer mi ngi la jox 3 heures et demi. Mm-hmm. boobu moom la koy jël di ko liggéey 16641. waaye tur la woo xam ne. képp ku koy liggéey na nga xam ne teen boo jotee ndox ma mboolem li nga bëgg àdduna ak alaxira suñu borom la ko làmbal macha allah kon nit ñi soo leen di jàngal da leen di xamal jàngal li nga xam ne ci la ñu jëm mhm. lan moo ci nekk parce que boo leen koy yombalee dañuy jàpp ne dañuy dem rek tànk ñëw indi déedéet mbiru yàlla yombewut noonu ndax suñu borom li mu yor daf koy jaay mayewu ko mhm. te mag ñi fi jaar ñëpp li ñu am dañ ko jënd suñu borom dafa am njëkk boo xoolee ci nekk njëkk la mu jëndee bokkut ñii dañoo toog di dugg dugg xalwatu jaamu seen borom di ko sàbbal ba am la ñu bëgg ñii dañoo dem liggéeyee ji yàlla teg leen ay nattu ñu nangu nattu yi ba am la bëgg kon nag mbiru suñu borom lu ñuy lu ñuy jënd la mhm. te ku ne la nga ca bëgg dafa am njëg te njëg la boo ko nangoo joxe jot ca la nga bëgg insha allah macha allah euh, mbokk euh, euh, mu ko Serigne Bara Kébé baaxee gis ngeen seen jotaay bi li nga xamante rek mooy njariñ bi loolu ñu def lu dul santaat ko bu baax a baax a xam ne boobu sax moom dafa gën a yitteel tax en tant tey bu ñuy wax tey mhm. Serigne si nga xamante ni tey ñu ngi jëflante ak askan wi lu ñaan yàlla ci wàllum paj mel ni am na benn kenn ko génn wax tey muy Ndoye Bane dañ ci jaar directement bu euh, euh, euh, RFM carrément di clash di leen clash boobu damay wax dama naan comme buñ ci boolee mënuñu génne exception di leen mhm, clash mhm. ndax loo gis am na exception nag parce que mhm. boobu mën a goo ci génnee sa bopp ndax yow damay bàyyi nga tontu ba léegi ndax xam fan laa jëm ak Ndoye waaw moom dafa wax ni sëriñ siy génn ci YouTube bi ak ci internet bi majorité bi waaw majorité bi ay tiriyan lañu ay dóorkat lañu waaw yow loo wax ci loolu mais wala mu wax dëgg la ah yow da ngay da ngay défendre Ndoye ah, wax dëgg la xam nga man défendre ma Ndoye Bane man dëgg laay défendre. ah dëgg ngay défendre. waaw man man ma xam. xam na ne dëgg laay défendre. mais mais li mu wax nii mais mais. mais li mu wax dëgg la mais li mu wax dëgg la mais ku ku ci meer dangay ngay da ngay dóor kat rek. kon loolu nga gis. Ah, waaw ku ci meer ku ci meer kuy dóor kat loo ci ku dul dóor kat loo ci mere man du ma tëriñaa du ma dóor kat. nee nañ doorkat yi dañ leen di jàpp bis ni tey. waaw ah, looy tiit looy mer yow doo dóor su fekkee ne dañ na képp kuy sàcc tey ji dañ lay rey mhm. yow boo du sàcc looy tiit kon ku ci mer kay da ngay dóor kat rek moom li mu wax dëgg la parce que li muy wax lu mu maîtriser la. lu mu maîtriser la lu mu maîtriser la lu mu xam la parce que information yi muy jot bari na ñuy wax ci rajo ak télé jotuñu information yi parce que fii jamono ji ah, kuñ fi dóor kuñ fi lekk sa alal. Ah. wala sa jëkkër abandonné la wala nga am jafe-jafe wala nit ëmbal la ba pare bañ ko wala nit bëgg nangu sa kër wala wala ki ngay njëkk xalaat mooy naa dem ci ndoy baan kooku information yi muy jot brigade de recherche sax jotuñu ko. mais mais am na sa am nañu wàll yoo xamante ne yéen a bokk wàll bi tey ci wàllu ñaan bi. Euh, mm-hmm. ñaan yàlla mais ñoom si boppam. Euh, d' accord ñu ndoy baan ndoy baan wax. te ñoom nee nañ ñoom ay dóorkat. waaw déggoo li ma la dama ne. man soo suñ nee góor ñëpp góor ñi dañoo sikk ndax bu ñu duñu yor jabar yow bu fekkee yaa ngi yor sa jabar bul mer. mais la dafa neex euh, sëriñ moom di publicité boppam. déedéet yooyu yëpp tam kàddu yooyu xaw na dara. waaw xam nga publicité mooy lan. nit li ngay jaay moo lay jaay. li ngay jaay mhm. lay jaay. nit su fekkee ne li nga yor baax na te li nga yor wér na. Mhm. doxalal rek ku ñëw ci yow bu fekkee ne li nga ko jox baax na bu subaa mu dellu si. d'accord waaye bari na ñoo xam ne li ma lay wax ni seet ko majorité ñi daan wax ci télé yi. mën naa tudd sax télé yi xëy na télé yi nga xam ne am na yoo xam ne tëj nañu. lu demee ne LCS mara yi fa daan wax nga xam ne daawoo toog journée te doosoo 10 maara wala wala set maara yoo xam ne seen émission yi tegloo na ñuy wax ci télé bi ñooñu ñu ngi ci dëkk bi mel ni ndax dëggati nga leen gis nañ fe ba gis fi ku génne sax am nen li lii nenu nit la xam nga loolu. lu doy waar la tey jii boo xoolee ñi doon wax ci tele ak rajo yi ñu ci bari ñi ngi fi. waaw waaw ana ñu léegi. génnatuñu parce que ñi leen daan seet yi ñi seet si ñu ne ñu lekk ci ñoom mënatuñ lekk ci ñoom parce que fu ñu toog yàq seen der. nekk Dakar quoi parce que waaw sëriñ dina nekk xam nga man Dakar laa dëkk. ah moo tax mu jaaxal ma. xam nga man dakaar laa dëkk. waaw waaw bu nee sëriñ dina nekk Dakar mooy am na ñoo sëriñ soo xam ne buñ nekkee ñëwee Dakar la doon sëriñ waaye buñ demee seen dëkk doon doon sëriñ déedéet loolu am na loolu mi ngi fi majorité sëriñ si dëkk ci région yii ci région yii wala sëriñ yi dëkk ci yenn dëkk yi Mali wala Burkina mm-hmm. sëriñ boo fi gis lii man maa ko wax mm-hmm. sëriñ boo fi gis mu jógee Burkina wala mu jógee Mali mm-hmm. wala mu jógee Niger ñëw fii di yëngutu ci wàllu sëriñ dekk ci média yi di wecc wecc xamul hmm? la wax loolu sëñ Bara amaat ak actualité boo xamante ni ci yeneen numéro ñun ñu topp ndax saa su ne dañuy indi benn actualité pour bañ ko di bëri ndax li waxtaanee dafa war a bëri ci wax ci actualité yi fi ñu tëjee daal yow da nga ànd li ma la wax dama la ci gën a leeral am na ci ñoo xam ne bu ñu demee seen dëkk ba ñu dëkk moo xam Touba moo xam Diourbel moo xam Saloum moo xam fu ñu mën a dëkk buñ fa demee dañuy nëbb sax sëriñ gi ñuy yëngatu fii Dakar waa ah, mais ñun bi wax déggoo li man kay li ma la wax kay dama lay indi ay dama lay wax lu leer nañ dama ne man xam naa ay ñoo xam ne. seen cëriñ dañ koy nëbb seen i mbokk. dañ koy mais lu waral waaw parce que dañ nekk dafa jubut. kon xam nga mokkal nit ñi dañuy jaawale. même si seen wàllu sëriñ diine war ñu ko sax yemale ci lasraar bi. <laughs> ba ci kilifa sëriñ yi diine yi. tey jii li xew léegi kenn xamut lan la. xeeti mu xaddam yi xew ku leen mu xaddamal. da ngay xëy suba jàng langu arab ba xam ko mokkal alxuraan taxul nga nekk sëriñ sëriñ ay garaat la dafa am ay xam xeeti xam-xam yoo waral a làmboo xam ko da ngay xam tasoo fu baax xam fiq xam mbooleem xam-xam yi nga xam ne hmm. dafay jëriñ nit ci ci dundam jëm ci diineem inshallah bu ko defee nga mën cee jëriñ nit nga door na mën a takk garaatu sëriñ mais léegi li xew léegi mooy ku jógee daara ja ma do doomu doomu daara la hmm. su ma du ma du ma ci xas kenn ndax su ma ci xas sama bopp laa hmm. ndax lu ma am ko may falaa yaroo ku jógee daara ja mokkal alxuraan bu njëkk liñ daan gis mooy bu doon nga daara yëpp ay commerçant lañ woon. Mm-hmm. ñoo feesoon Sandaga ñoo feesoon asalem H&M mais léegi ñu ci bari buñ jógee daara ju la ñuy def mooy ak cëriñ la ñuy woote te mbirum lasraar demewul noonu ah, mbirum lasraar lu ñuy jàng la gëstu ko topp ko tarbiyu ko ba am ci la nga bëgg man tey soo taxawoon ci télé na man tarbiyu ma ko mm-hmm. tarbiyu ma mbirum lasraar am na ay kilifa yu mag yoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ñoo lay njëkk a tontu ne laa ah, man tarbiyu na ma ndax man dama leen a tarbiyu topp seen ginnaaw tarbiyu leen mën naa ci cité ñu baree baree bari mën naa ci wax kenn ko mel ne Alaaji Malick Guèye mhm. ñu nekk fii euh, Colobane en face cosaan mhm, mhm. ñaata at la nekk ak moom lu bari lu ma xam ci lasraar moom moom ma ko xamal te mi ngi toog ru xam lu média bu bari da ngeen ko daan yi dawul nekk ci média pour yi ñoo ko daan seet su ngir jël ci moon yenn xibaar mu leen di xamal sëñ Bara waxtu bi dab nañu. Mhm. ni ñu ko waxee rek euh, jotaay bi xam ne moo waral loolu ndax li ñu war a waxtaanee ci jamono saa su nekk actualité am na nga xamante bu ñu dellusiwaatee am na actualité yu am solo ñu war mhm. euh, nga tàggatoo ndax xaw nañu xaabaabal sax ci waxtu bi ñu mayoon. Mhm. Euh, looy tàggatoo. jërëjëf Mahamadul Amin di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax mu rafet sama borom la neex. lépp lu ñu fi wax mu mu mu jubadi nañu xam ne suñu ñàkk xam-xam waaye du suñu jubluwaay Euh, di wax euh, mbokk yi ñu ñuy bàyyi xel ci émission bi ndax am nañu yéene génn ci xam-xam laabire ci nit ñi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum euh, jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yaakaar naa yéen euh, àndoon nag ñun ci jotaay xam-xam ne mbokk yi nii rek la di ko santaat bu baax di sëriñ euh, Bara Kebe mbokk yi nee naa leen woon ki nga xamante ni xam-xam da ko ñor lool waaye dëggu li mu mën danaan la mën naa ko lu mu mënul itam day wax ni carrément lii mënuma ko numéro téléphone baa ngi noonu di affiché ci baaru écran bi 77 027 10 61 ndi mboolem équipe technique bu jàmm ji info ci wàllu éclairage bi caméra bi ak seen mbokk taalib Mouhamadou Mouhamadou Lamine Muntaxa yàlla mi borom jàmm te it jàmmal nga daal am jàmm yàlla na bi dool ñu defal jàmm dina wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam-xam itéel ci seen jotaayu kàggu mag ñi dox ci wàllu asrar ak point net kon nag kon nag bu ko kenn wuti kenn wuti kenn wuti kenn wuti kenn wuti